salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa tarbiyatu taalim ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar di ñëw ci suñu thème bu ñu tuddee koor waaye ñuy ñaan yàlla jële fi mbas mi muy coronavirus fa tabaarakala tey nag dañuy waxtaan ci texte bu ndaw ñu wax la rekk ci li yàlla yónni Seydina Muhammad ak li tax mu yónni ko baasa allahu fi ummiyiina rasulan minhum fa rafaa xam nga yàlla dafa xëy rek yónni ci xeet woo xam ni jànguñu binduñu xamuñu luy jàng mu xëy yónni ci ñoom ndaw lu bokk ci seen biir di seen doom ñu xam doom xam cosaanam xam ni xam li mu jikkoo mu eey yaa maxsaral quraysh yaa maxsaral quraysh yaa sababa quraysh wa yaa kibaara quraysh ñëpp daw wër ko mu wax lu kenn ñimewul wax ne inni rasulullahi ilaykum yéen waa màkka waaye wa ila naasi kaafa waaw law kasabtu naasa jamian ما كسبتكم ولو خررت الناس جميعا ما خررتكم كنك فوالله الذي نفسي بيده إني رسول الله إليكم قاصة يا أهل مكة واي وإلى الناس كافة mu ين leen مكة ين màkk yéen sama yaay yéen sama tàmpa yi yéen baay yi yéen maam yi yéen dijaay yi ndax mus ngeen ma dégg ma fen ñu ni déedéet mu ne waaw ndax gis ngi mus ngeen ma dégg ma wor ñu ni déedéet mu ni ndax lu ma leen wax da ngeen ko gëm ñu ni ko waaw ndax musuñu wax lu dul dëgg mu ni ah yonentu laa ci yéen yàlla ma yónni ci yeen yéen rawatina yéen waa màkk waaye nag ci àdduna bi yëpp la ma yónni ci mbooleem nit ñi mu woote ñu saboote ko am ku jóg ku ñàkk fayda mag mu ñàkk fayda ni ko tabban lak alihaaza jamaatuna yaa alku yaa torox yaa tuskare ndax li nga ñuy dajale ndeysaan xol ba jóg yàlla ni ko dalal sa xol may fayu tabbat yadaa waaw wax ko lu raw lam ko wax waaw ko yow yaa alku yaa tuskare yaa torox yaag sa waa kër gis nga wooteem boobu nag mala ala hidaayatan wa irsaadan woote bañ doon xeeb moo fees àdduna ak njub tey moo àdduna ak njub hidaaya ci ci hidaayatu waaye moo ko feesit ci njub mu andi diine ju mandu diine joo xam ne day yamale bayna naas diggante nit ñi jamaatin wa afrood giir yi nga xam ne ay mbooloo lañu ak benn benn yépp la yemale waxaala yaa maxsaral xureys fa la waxee ni yéen waa xureys inna allaha taala qad azaba ankum naxwatal jaahiliya wa taasamaha bil aba mu ni yéen waa màkka yenn waa Quraysh yàlla ñëw na pour dindi fi réer yéen nag yéen ngi koy màggal ngir la ngir bañ laa fadla li abyada ala aswad mu ni ku weex mënul gën ku ñuul de arab mënul gën ajam illa bi taqwallah nit mënul a gën mukk te du ci ragal yàlla la la gënee ku la ëpp ragal yàlla gën la set xol kooku moo la gën mbokk mi booy xool yow yaay kan taxawal ci seetu nga xool sa bopp koy gis sa jëmm booy xool yàlla mooy kan defal sa jëmm seetu wala nga def jëmmu yàlla ji seetu boo xoolee koy gis sa bopp kon arab mënul gën ajam illa bi taqwa kon du der bu ñuul bi ndax ci liy dox ci der bu weex bi mooy dox ci der bu ñuul bi faasa bidaayatan wa qashdan kon mbokk yi bu ñu am complexe ci tubaab wala ci ci naar su ko defee wa sarufa xaayatan wa muraadan léegi boo amee ragal yàlla rekk te nga ci dayo boo xam ni kenn ku ne loolu la bëggoon te du ko am waskuru nicmatallahi alaykum isa kuntum is kuntum axdaan fa allafa bayna mu ni fàttaliku leen xéewalu yàlla yi nga xam ni moom la xéewale ci yéen ba ngeen nekkee ay noon sunu boroom subhaanahu wa dëppale seen xol yi فأصبعتم بنعمته إخوانا بنين مجين نك أي مبك تخيول يال وكنتم على صفا حفرة من النار نكون جين دخول ببغ ريانتي لن موتاح جين جوب سيدنا محمد لوتاح جين أند موم كذلك يبين الله آياته لعلكم تحتدون لولو ليالي جندي نت كونك ndax ngeen jub mbokki jullit yi mbas mi mu ngi ci àdduna bi waaye nañu delloo sunu bopp ci yàlla xam ni feebar bi nekk ci àdduna bi ndax xàmmee na ku ñuul ak ku weex déedéet mu ngi rey ku weex mu ngi rey ku ñuul mbirum yàlla nag noonu la ngi rey jullit ngi rey yéefar ngi rey chrétien ngi rey yahut laqad arafa nas xaasa diin wa taalimi faamila noonu la nit ñi xamee diini ji ak am njàngaleem mu mat mu matal mu jot bu ko defee kon ñu war a sol ay mbubbam moom diine bokk na ci mbubb yi lislaam indi ba ci jëkk mooy al aadab assaamiya teggin boo xam ni foo dox ñu xoolaat la waaw la góor ga waxoon ni siyamun tuxaqiqu jawharal insaan nee na jikko mooy couleur jëmmu doomu aadama waaye jikko ju rafet a tax muy wax siyamun tuxaqiqu jawharal insaan waaw nee na nee na nee na doomu aadama jawhar la mais wurus la mais liy feeñal taaru wurus bi mooy jikko ju rafet bu ko defee kon mbokk jullit bi ñu sol ay mbubbul islaam mbubb ya nag bari na waaye ba ci jëkk mooy teggiin laysal yatiimu nag lazi maata waaliduhu mais innal yatiima yatiimal adabi ko defee kon ñu ngi nuyu waa tarbiyatu taalim yépp di nuyu góor jigéen ndaw mag di gërëm maam Cheikh Fall ca Amérique baayu daara yi na yàlla defal ko tawfiq ak ñu mel ni moom ñëpp mel ni maam Gana Kebe yal na yàlla jàppale ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf